parce que loolu bettu na bu doon adduna la ñuy moom mooy suñu kilifa moom maa ko war a fekk mais dafa am lu ñu jiital lu am solo mooy les relations humaines Birame Faye bis ma adduna bu ma ay nit di caalis dama leen wax ne Birame moo gën gaaw loolu moo leen di seddal sama diggante ak moom te li nga wax ci léegi léegi nii laaj ma sama xol wala sama doomu ndey la dara du ko jënd maa ngi lay sant bu baax doomu ndey maa ngi ñëw nag Fatick ñu waxtaan amul dara loo xam ne du ma ko denc mais kon wax ji jeex na parce que nee na loo bëgg ci moom dama koy am loo bëgg ci moom xam na ko te foofu laay dëkkee voilà mooy bu ma waxtaan ak magam xaritam am di jàmm ak mbokk bu dee loolu sax amoon te loolu mënta am man démocrate laa libéral position mais li ma bëgg ci moom comme léegi dama koy am wax naa ko ci biir boppam donc am naa yaakaar que incha allah lu ñu bëgg ñu ko nit ku yemal woon président Macky Sall kenn li ma ci wax du ma ko wax da koy béykat léegi wala juróom bu góor donc Macky li mu bëgg ci moom da koy am surtout jamono bii.